mbaa ci mbedd mi da ko war a yar fexe ba jàngal ko mu xam masdaru talaqi ak diin fan nga war a jële sa diine fan nga war a jële sa culture fan nga war a jële sa dundin foofee fenn la mooy alquran ak sunna képp koo xam ne andi na lu wuuteeg alquran ak sunna la mu andi baaxut du dëgg su ko andee ci turu diine waxul dëgg su ko andee ci turu tariqa ëpp naa topp su ko andee ci turu politique rawati fa lépp lu wuuteeg alquran ak sunna ab julli waru caa jaar kon xale yu jigéen yi jullit bu jigéen bi mu doonee doom nañ ko yar yarub alquran ak sunna teel koo jàngal njàpp te jàngal ko jàpp yi nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngal ko julli te jàngal ko julli wii nu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xale bu jigéen bi dañ ko teel a jàngal ak tey dereti mbërëg ak dereti reegal meret meret jàngal ko nu ñuy sangoo janaba ku am doom ju jigéen bu demee ba am fukki at na nga ko jàngal nu ñuy sangoo janaba ndax bu ko reegal bettee mu jëkki-jëkki gis reegal ci âge bu teel fekk mënoon naa sangu janaba mën naa jàpp mën naa julli xam tam luy waral yàq am njàpp xam tam luy tax nit ki war a sangu ak nit ki bu gisee reegali xayd wala mu am jote ak jëkkëram ba am janaaba yiñ ko tere moo xam ne ku yor janaaba wala mu yor xayd dañ ko tere mu jàng alquran mu ngoog wala yu mel noonu fekk sa nguul bu ko defee ki am sa doom di jigéen di ko yar bu amee juróom-ñaari at sant ko julli bu amee fukki at boo yégee ne mi ngi sàggan ci julli na nga koy yar ci loolee te bu aajoo nga mosal ko ay ay ay kàcc rek nga mosal ko ay ay kàcc rek ci ndigalal sayyidina Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam yonent bi moo ne nañ sant xale yi julli bu ñu amee juróom-ñaari at bu ñu amee fukki at nañ leen ciy fudd mu ngoog sa doom ju jigéen ji da nga koy teel a takk ak yàlla soo amee doom jigéen da nga koy teel a rabtu ci yàlla da nga koy teel a takk ak yàlla waaye doo ko xool rek bu jullee baax na bu julli baax na nu jullee mel baax na déet daa ko woo di ko waxtaanal ci yàlla ci niveau bu tolloo akum xelam niveau bu tolloo akum xelam daa ko waxal ci yàlla fexe mu xam yàlla fexe mu bëgg yàlla fexe mu gëm yàlla fexeel ba amul ab relation diggante sa doom jigéen ji ak yàlla fexeel ba muy ñaan yàlla te boo fexee ba sa doom ju jigéen am soxla ñaan yàlla yàlla may ko mu gis daal li nga koy jox preuve ci ne yàlla day nangu ay ñaan loolu mooy jéego bi nga jëkk def pour créer pour créer relation sa diggante ak sa doom yenn saa yi dinaa am soxla su ñor woo kenn ci sama doom yi nga xam ne amaguñ fukki at ne ko damaa am soxla am na benn bis naa woo kenn ku bokk ci ñu ne ko damaa am soxla su su ma yitteel lool ma bëgg nga ñaanal ma ci mu kontaan daal di ree daal dina ma waaw ma ne ko déet wax ma nooy ñaane mu ne ma xanaa damay dem ci jàkka ja damay jàpp ma demee ci sama jàpp ma dem jàkka ja julli ñaar rakka su ma jullee ñaar rakka ma daal di sëlmal daal di ne sama borom la sama papa soxlaan sii mu am xam nga ko yàlla na nga ko ko may ma gërëm ko neexal ko ne ko demal nga def ñaan googu mu dem def ñaan nga yàlla xam ne ñaan nga am na de nangu na de waaw yàlla xam ne ñaan nga am na da ngay créer sa doom relation ak yàlla subhanahu wa taala waaye doo ko bàyyi muy dem rek du joteeg yàlla dara du xam yàlla du séq ak yàlla dara loolu kenn du ko def sa doom ju góor sa doom ju jigéen wutal ko relation ak yàlla xamal ko yàlla jàngal ko ñaan na am soxla ñëw wax la ko nga mën koo faj nar koo faj ne ko demal ñaan ko yàlla bu ko ñaan yàlla ba def nga dem defal ko bu ko defee moo xam ne yàlla may na ko noonu la ñuy yara doom ju jigéen yarub diine sa doom ju jigéen tam nga teel koo jàngal pas-pasi tawxiid teel koo libéré ci li dal jigéen ñu bari ci gëm ak njabar ak mboxaama teel koo jàngal pas-pasi tawxiid ba mu xam ne lor ak njëriñ fenn lay jóge te mooy ci yàlla subhanahu wa taala sa doom ju jigéen nga teel koo xamal ni yàlla dangaa war a joteeg moom joteeg gëm akuk mbëggeel akuk ragal akuk topp ak wommatu ci ay ndigalam wommatu gu mat sëkk teel koo xamal palaasu sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci dundam sa doom ju jigéen boo koy yar da nga koy teel a xamal wàccuwaayu sayiduna muhammad ci dund jullit bi teel koo xamal nag kooku mooy ki yàlla yu ni ci nit ñi ñëpp teel koo xamal ne sayiduna muhammad moo gën a foor sa baay moo gën a foor sa sëriñ mooy sëriñu sëriñ si moom la ñëpp war a jéggal moom la ñëpp war a roy te ay ay colka sayiduna muhammad nee na nii la julli war a solo noonu la ñuy def ak sa doom ju jigéen sa doom ju jigéen da nga koy teel a jàngal ne Seydina Muhammad mooy royukaay bi nga xam ne du dagan ñuy wuuteeg sunnaam ngir bëgg a roy modd bu bees wala ngir bëgg a déggoo ak société bi da ngay teel a jàngal sa doom ju jigéen àq yi nga xam ne moom la islaam wax ne mooy àqi way jur àqi baay ak àqi yaay teel ko jàngal sa doom ju jigéen àqi mag mag ju góor ak ju jigéen teel la xamal sa doom ju jigéen ak sa doom ju góor ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa bëgg ñi bokk benn baay wala jenn yaay wala deret baay nañu toppante ki mag na jiitu ki rakk topp ci waaye nag ci kaw satu ki jiitu jaar ci kitaab ak sunna al al al al kabiru min al ixwati bi manzilati al ab waaw yonent bi nee na ci mag ci frère yi day taxaw taxawaayu baay loolu dañ ciy teel a yar sa doom ju jigéen ak sa doom ju góor bu ko defee famille bi mën a doon menn mbooloo moo xam ne day am kilifa kilifa gi mooy baay ba su fi nekkul mooy taawu baay bi waaye sart bi it mooy kilifa gi moo xam baay la moo xam taawu baay nañ ko jaarale ci yoon nañ ko jaarale ci yoon ba famille bi nañ tàmm yoon ba nga xam ne bu ko baay bi jàddee doom yi ci seen bopp mën nañ koo lijjanti mën nañ koo jubbanti maa ngi fàttali ko jenn doom jigéen yoo xam ne ji dane moom daal dafa bëgg gis baayam xamal ko ni ko yonent bi nee na i'dilu bayna awlaadikum ndax moom baayam daa jëndal magam ju jigéen mbub moo xam ne mii dafa dafa dafa jar trente mille moom kenn jublu ko dara dafa bëgg dem ci baayam pour xamal ko ne ko yonent bi nee na i'dilu bayna awlaadikum loolu la da ngay jàngal sa ay doom yu jigéen sa doom yu góor ni leen xaanuunu yàlla moo war a reñe moo war a atte sa baay bu jiitoo na jiitu kitaab ak sunna sa mag bu jiitoo na jiitu kitaab ak sunna suñ ko jàddee waratoo leen a topp waaye nag buñ ci jaaree nañu jiitu ko topp ci ñoom ndax islam tam diine discipline la ak diine am kilifa te topp kilifa ga xamal sa doom ju jigéen àqi jege ñaare ak àqi dëkkandoo dëkkandoo da am àq waaw miskin ak jirim dañoo am àq alquran da ko tudd ay yoon yoon nga jàngal ko sa doom ju góor ak sa doom ju jigéen sa doom ju jigéen soo ma nee mu mokkal alquran ne ko teel a mokkal lu toll ne li nga ittewoo sa doom jigéen dal école am certificat d'étude ak brevet na nga ittewoo lu toll noonu mu mokkal alquran am sa doom ju jigéen faale woo fenn ijjak firul ijji wala bu fekkee yaa ngay ittewoo njàngum école am téeméer njàngum alquran da nga ko ittewoo ñaar mbaa ñett trois pour cent ci alquran cent pour cent ci école loolu du lu jaar da ngay teel a fexe ba sa doom jigéen mokkal kaamil bi ndem mën naa am su fekkee xal ma neexul ñor gum ko mokkale mu mokkal lam te mën a mokkal te nga teel koo jàngal xadiis yonent bi mu mokkal ci lu bari sallallahu alayhi wa sallam te boo ko dee jàngaloo ay xadiis na nga tàmbalee ci xadiis yi nga xam ne dafa aju ci dundu jigéen xadiis yi nga xam ne mooy jàngale solo xadiis yi wax ci affaire toilette xadiis yi wax ci affaire mbërëg xadiis yi santaane nañu war a toppe jëkkër loolu yi jëkkat jàngal xale bu jigéen noonu lañ koy yar jàngal ko fiq islaam yi lépp loo ci xam ne lii dafa aju ci vie pratique am nga jëkkale wala teg ci la ca tagu bu ko defee mu màgg te fekk xam ne ci diineem lu baree bari sa doom bi jigéen na nga ko jàngal dund saxaaba yu jigéen ya jàngale sa doom jigéen loo ko mën a jàngal ci dund sitna Aïcha nam meloon ak ragal yàllaam ak fonk diinam ak bëgg yonenteem sallallahu alayhi wa sallam ak xijaabam aw solo wiinam ay jikko wiinam dëppoo gum dëppoog alquran naka noonu mboolem saxaaba yu jigéen yi bu ko defee mu mën a roy sitna Aïcha man koo bëgg man koo xam mu ngoog loolu noonu la ñu war a yare xale bu jigéen bi bu ko defee lépp loo xam ne mën na koo jàng ci xam-xami adduna yoo xam ne opposé wul diine moom mu ko jàng lu baax la lu farata wala nga jàngal ko ko mu ngoog tey itam sa doom jigéen da nga koo war a teel a tàggat ci mu def daawa bu leen yaakaar ne daawa góor ñi rek ko war a def góor ñi dañuy daawa jigéen ñi daawa ne jigéen ñi ñoo gën a gaaw ci daawa jigéen ñi ndax ñoo bokk langage bu ko defee nga teel a tama sa doom jigéen muy def daawa tey itam nga teel koo jàngal bu gisee lu dul noonu mu wax ca am na benn feebar boo xam ne daf noo dal ñu bari ci ñun waa Sénégal mooy gis lu xaraam du la naqari du la déranger doo ca wax loolu jaaduwul tamalal sa doom ju góor ak ju jigéen suñu gisee lu naqari yàlla mu naqari leen ngir yàlla tayit ñu wax ca ngir yàlla xanaa kay nañ sàmmonteeg qawaidul amri bil maaruf wa nahyi anil munkar santaane lu baax tere lu bon am na ay yoon yoon ya na nga ko xam jàngal ko sa doom ju jigéen sa doom ju góor ba nga xam ne dañuy nekk ay duwaat mu ngo bu ko defee sikk amul ci ne xawaayit yi nga xam ne moom la islam tëral ci wàllu yar xale bu góor xale bu jigéen suñ ci jaarale woon suñu doom yi kon cànkute gu bari gii am du am kon crise de l'éducation bi ñuy tawat du fi am yal na yàlla dimbali ba ñu mën a tatbiq loolu bu ko defee jullit bu jigéen en tant que jabar islam daf noo jàngal ni jigéen mooy genn wàllu société bi daf noo jàngal ne jabar sharikatu xayaat la ci góor jigéen ak góor jëkkër ak jabar ñoo ànd di société ci góor góor ci jigéen ci jabaram lay amee sakan sakan mooy ak dal ci lay amee daluk xol ak daluk xel ci jabaram lay fekk yërmande akuk cofeel jabaram tam am ci moom yërmande akuk cofeel mu daal di nekk takaaful ñiw daal di mott lent sama borom yàlla wax na ko ci sootu ruum aaya ñaar fukk ak benn wa min ayaatihi an xalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskunuu ilayha wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma inna fi dalika la ayatin li qawmin yatafakkaruun yàlla dana bokk na ci mandargay kàttanam aku xerañam moo leen may ay jabar yu bokk ci yéen ak ay jëkkër yu bokk ci yéen ndax ngeen mën a am sakkan ci ñoom ba noppi mu wëlbatiku moom yàlla andi ak bëggante aku yërëmante seen diggante yéen jëkkër yeeg jabar yi loolu ay firnde la ci kàttanug yàlla ñeel ñi nga xam ne dinañu xalaat waaye balaa may weesu foofu dinaa leen xamal ne wootekati féminisme yi bala ñoo jekki yërmande gi amoon diggante jëkkër ak jabar daañu ko dindi mbëggante gi daañu ko sàmm daanu ko watti dindi ko soppi ko mu nekk een yërmande gi soppi ku nekk soxorante ak ak ak jéem a notante sakan gi walbati ku nekk safara suy tàkk loolu la féminisme di jur ci kër gi jabar day doon sakan pour jëkkëram doon istiqraaru xayaat dalukaayu dund jëkkëram jabar day xam ne maison conjugale ab jaamukaayu yàlla la ci jigéen comme ni mu doone jaamukaayu yàlla ci góor jabar suturas jëkkërama jëkkër suturas jabarama moo tax sunu Boroom yàlla di ko wax ci alquran ci suuratul baqara aaya téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu ne hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna ñoom jigéen ñi seen sutura la ñu yéen góor ñi yéen góor ñi itam sutura jigéen ñi ngeen mu ngoog jigéen nag ci ni ko yàlla binde yàlla da koo sàkk def ci moom sentiment bu bari def ci moom xelum doxal kër mu rëy moo xam ne góor amu ko dénk ko biir kër gi ne ko yaral gone yi te taxaw ci kër gi te xam ne ak ndénkaan la loo xam ne yàlla dala koo dénk dina la ko régler ëllëg mu ngoog bu ko defee jigéen ak taaram mooy toog ca këram yor kër ga yar ay doomam xam leen ni sa borom yàlla bi muy sàkk doomu aadama di ko andi ci kaw suuf daf ko doon sàkk ngir benn bit déterminé bit boobee mooy lan mooy mu nekk moom nit mu nekk xalifa bu yàlla ci kaw suuf di doxal ndigali yàlla di bàyyi ay tereem te xilaafa googu daa war a continuer feeg suuf a ngi fiy nekk bu ko defee pour mën a continuer doon xilaafa gu baax il faut ñu préparer masse yi il faut nit ñu préparer ko il faut ñu yar ko il faut ñu jàngal ko yar ak jàngal dafa am ñaari période période base éducation de base éducation de base ku koy def ku koy def yaay yaay mooy def éducation de base kon boog yaay liggéeyu yonent la yor ci biir kër bu mu ko xeeb bu mu ko tuutal bu ko kenn xeebal yaay liggéeyu yonent la yor la yonent bi doon liggéey ca Madina ci Aboubacar ci Omar ci Ousmane ci Ali ca saxaaba ya te mooy defar seen i pas-pas ak seen i jëfin ba mu dëppoog li yàlla bëgg loolee moom la yaay war a def ci ay neppenam yu ndaw ci kër gi yaay day teel a yar ay doomam ci bi ñu juddoogul jigéen bi mu ëmbee la war a tàmbali yar doomam nooy yare sa doom ci bi nga ëmbee borom xam-xam yi dañoo wax ne am na foo xam ne bu fa jëniin maanaam li nga ëmb ëpp ëmb bu fa tolloo ci màgg day daal di tàmbali di yëg yenn xew-xew yi xew ci biir néeg bi te fekk juddoogul su boobaa ni ko yaayam di yare mooy fexe ba la muy yëg doon loo xam ne dëppoo naa kitaab ak sunna nay julli moom yaay ji te fekk daa ëmb na baatu yàlla di jib ci néeg bi ci kaseti alquran wala rajo te fekk ñu ngi ëmb xale bi juddoogul xale bi bu juddoo bu mu yem ci ab estati bu mu yem ci photo boo xam ne dafa xaraam nañ la gis kaamilu alquran xale bi li mu li ñu bëgg mu jëkk koo dégg mooy lan ah ñaari baati seere yi xanaa xamu leen ne kay tudd kay tudd liir ba li muy dee ci nopp lu lu nga defe ne moom la day nodd tudd liir bi xam nga Sénégal ñuy bare bare ba léegi mënuñoo ngénte yéen gis kay tudd doom ji mu ne day xaar ba ca bisu juróom-ñetteel ba juróom-ñaareel la yonent bi wax waaye moom juróom-ñetteel lay def ba noppi buy tudd bale mu tudd il faut bis boobu day ñëw te day indi xar mi dékkër la eh taxawal defarul ñu ngi waaj a rendi boobu dékkër la pour lan la ana fu sukkandiku ñu ne ñu ne da ngay da ngay nodd ba pare da ngay da ngay da ngay tifli tur wi ci biir nob bi bu mu moy ndax tur wi bu moyee nob bi xaw ma lan lan la wax jaahiliya yooyu loolu lépp ay biddaa la ak ñàkk xam ak bàyyi fi njub gi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax ci ngénte da ngeen dellu ci téere diine ji ngeen jàng ngénte yonent bi li mu daan ngéntee ngeen xam ko di ngéntee noona da ngeen fekk ni nit ki li mu war a jëkk a dégg mooy ñaari baati seere yi mooy nodd ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ci nopp ndeyjoor ak liqaam ci nopp càmmoñ waaw yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam képp ku am liir nga nga nga nodd ci nopp ndeyjoor bi liqaam ci nopp càmmoñ bi yàlla dina ko musal ci umu subyaan umu subyaan seytaane la mu nga bu ko defee kon nodd googu bu ko liir bi déggee mooy maanaam mission bi nga xam ne moo tax mu juddu mooy mu dund laa ilaha illallah muhammad rasulullah taxawal ko ci kaw suuf mission boobee moom lañ koy teel a fàttali xamoon na ko ci aalamul arwaax waaye ñu koy fàttali ci aalamul dunia moo tax ñu bëgg mu jëkk koo dégg ndax mu teel koo xam mu ñu bëgg tam mu mujj koo dégg ndax mu mujj koo wax xam ngeen na yonent bi nee na képp koo xam ne du ngay génn àdduna la ñaari baati seere yi nga mujj a wax boo laaxiraa yàlla yóbbu la àjjana moo tax ñu bëgg ku fekk kuy sukuraat ngay faral di baamtu ñaari baati seere yi ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah di ko baamtu ndax kii bëgg a dee dégg ko fàttali ko ko mën cee jaar su ko defee lii bëgg wax lépp maa ngi desiwaat ci xale bi xale bi laa bëgg ñu xam ne daa war a jëkk a dégg mission bi ko indi ci kaw suuf te mooy ñaari baati seere yi bu ko déggee ba noppi yaay ji na fexe ba dég-dég boobu bu continuer mu di ko gis muy julli di ko gis muy xijaab di ko dégg muy tudd yàlla di ko dégg muy santaane lu baax tere lu bon di ko bañ a dégg muy saaga yaay day teel a tàmbali yar ay doomam te ba ñu ëmbee ak bi ñuy door a judd mën a gu ñoo wax bi ñu toog tolloo ci jàng wax sa doom ju jigéen wala sa doom ju góor yow yaay ji fexeel ba mu jëkk a wax laa ilaha illallah boo ko mënee yonent bi ne da ngeen sax ba seen doom jàngee wax laa ilaha illallah yar boobu nga xam ne mooy éducation de base yaay war ko defal ay doom yu doom yu góor ak yu jigéen yar boobu yi ak préparé googu moom laa leen di liggéey yonent la moom la jigéen ñi am ci biir kër ñi waaye nag tubaab yi dañuy bañ liggéey boobu avancé tubaab yi dañoo bëgg jullit ñi yàqu doon ay chrétien dégg naa ñu ne xaw ma dëgg la xaw ma du dëgg na topp ñu wax na topp ñu wax nee nañu daa am genn kilifa gu demoon ca pap ba ca Rome ne ko waa Sénégal def naa li ma mën protestant ay catholique mënuma ko ba tax na mënuma leen def ay catholique waaye fexe naa ba def leen ay faux musulman ay faux musulman mooy musulman yoo xam ne dañuy def li nu def li nu def taxrifu kitaabillah alxuraan suñu teg ko fële wut suñu yeneen fent tudde ko diine balaa sa xol bee tàng ngay seetaan télévision guddi alxames ba gis diine ji léegi ba gis diine yu bari yi woote yu bari yi sëriñ yu bari yi coow yu bari yi gàmm goo xam ne màggal goo xam ne ziar boo xam ne doo dégg mukk yàlla nee na yonent bi neen sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy diina léegi tagg sa maam tagg sa sëriñ temps temps fort bi nag moom temps fort bi nag moom ci antenne bi moom moom moom meeting lay doon meeting faw nga sant gouvernement bi sant rajo beeg borom rajo beeg borom réew lii mooy diine lii ko xam taxrif inxiraaf tabdilu kalimatillah li yàlla waxoon ak sayidna Muhammad ku ko wax léegi ab ibaadu nga ku ko wax léegi da nga andi diine ju bees ana lu bees li yonent bi andi woon depuis junni at ak juróomi téeméer at moo bees loolu ko xam tabdilu kalimatillah inxiraaf taxrif loolu musiba la loolu mooy lin daal loolu tubaab yi dañoo bëgg mu continuer moo tax ñuy bañ jigéen ñi xam seen rôle toog ci biir kër yi def ko jigéen ñi nga xam seen lool rôle jigéen ñi xam leen seen rôle seen rôle rôlu yonent la rôlu yonent la rôlu defar xale yi ba bu ñu màggee doon ay xalifa yàlla ci kaw suuf kooku mooy liggéeyu jigéen boole koog toppatoo kër gi góor gi bu ñëwee faaw mu andi coona ndax bit bi daa tàng bit bi daa metti wutuma alal dafa sonle waaye bu ñëwee yow jigéen ji fexeel ba dul ko coono boobu fexeel ba mu noppal ko yar waa kër gi defar kër gi mu set yéen ñëpp ngeen bokk nekk ci bonheur loolu mooy rolu jullit bu jigéen ci biir néegu sëyam mu ngoog su ko defee moo tax borom bi tabarak moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nañu tànn soxna jabar des koy tànn des koy tànn yonent bi nee na nañ tànn jabar te jigéen tam bu ko kenn forcé may ko ku mu bëggul yonent bi pour défendre jigéen ñi moo tax bi mu ne na góor ñi nekk seeni kilifa itam kilifteef gën a ko wutal ay yoon ak i loi ku am sa doom ju jigéen wax ne yaa ko yilif ba tax nga yaakaar ne bu la neexee may ko ku mu bëggul naa ngi leen di xamal ne islaam d'accordul ci loolu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam laa tunkaxul aymu xatta tustamar wala tunkaxul bikru xatta tustazan yonent bi nee na jigéen moo ju ma sa sëy kenn du ko maye te laajoo ko ndigal ab jànq bu musta sëy kenn du ko maye te tàgguwoo ko kon ki am koy bëgg a maye moo xam ku musa sëy la moo xam ab jànq la moo xam baayam nga moo xam tàmmiñam da ngay dem tàggu ko dama laa bëgg a may diw loo ci xam ndax bëgg ko te na nga ko bàyyi mu am liberté gisante ak moom diw moomee gisante ba nag na jaar ci kitaab ak sunna bu ñu ànd dem plage bu ñu wéet di xawaare bu ñu def dara lu may nañu toog te maxaram fekk ko ku góor ki xool ku jigéen ki ku jigéen ki xool ku góor ki ñu mën a waxtaan xam ba xam ndax bëggante nañu buñ fa jógee bàyyi bi na dem ci doom ju jigéen ji tàggu ko bu ko nee bàyyi bëgg naa na maye bu ko nee bàyyi bëgguma bu mu yaakaar ne sañ na ko maye déedéet déedéet Cheikh Khalil nee na bàyyi sañ naa forcé doomam ju jigéen ju sëyagul maye ko Cheikh Khalil dafa juum yàlla rek ko dul juum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom lii la wax ab jànq des koy tàggu te itam bu ñuy gisee bu ñu seetee ci dund yonent bi am na ci dund yonent bi ay xale yu jigéen yi seen baay maye woon te kañ leen may bugguñu ko ñu ñëw kalaame ko ci yonent bi yonent bi dafa taxaw ne damay dindi sëy yi takk naa ci turu ndaw suñu wax xansa su ngeen demee ci fiqu sunna da ngeen ko ca fekk koo xam ne baayam da koo maye te kim ko may bugg ko mu ñëw ne yaa rasulallah sama baay damaa maye te kim may bugguma ko yonent bi nag kon damay dindi sëy bi am na ci ñett ñoo xam ne kenn ka yonent bi daa dindi sëy ba ñaar ña kenn ka ba yonent bi demee bay waaj dindi sëy ba xale bu jigéen ba dana kon nag wéyal naa li sama baay def damaa bëggoon rek góor ñi xam ne mënuñu noo forcé baay yi xam ne amuñu sañ sañu forcé nu waaye li sama baay def wéyal naa ko loolu li muy teg ci mooy jigéen islam ko jëkk a aar moo ko jëkk a protégé waaye nag ñi di def ne dañ ko bëgg a yeew weey ne dañoo bëgg a yeew yi jigéen yi yeew yi wala yeew yeew yi wala yeew ah yeew kay yeew jigéen di nga xam ne xam nga nit nit jaam la faw nga yeewu ci dara diina yàlla di dalay yeew mbaa sa bakkan yeew la mbaa yoon tubaab yeew la rek da ngay doon jaamu yàlla baa nga doon jaamu xiram rek waaye njaam gi mënoo koo génn mukk waaw jaam nga al insaanu abdun bi tabiatihi ni ku nekk ak njaami nature la ci moom faw nga am koo jaamu yàlla ne yàlla nag boo jaamoo yàlla jaamoo ki nga war a jaamu muy jaami ad jàmmi àdduna ak alaxira waaye boo jaamuwul yàlla faw nga jaamuwul xiram bu la yeew na yàlla yeewul faw yoonu tubaab yeew la mbaa yoonu bakkan ak bànneex yeew la américain yaa nga fee ca ak ak européen di tëral seen i loi di yónnee fii ñu jël par force di doon ay jaam dootul léegi jaamu yàlla xanaa jaami tubaab xalaat bu ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa santaane kon nañu tànn soxna te nañ ko tànn ci milieu islamique booy tànn tànnal ngir diine yonent bi nee na tunkaxu lmaratu li arbain li maaliha wa li xasabiha wa li jamaliha wa li diiniha fadfar bi daati diini taribat yadaak yonent bi te buxaari moo ko solo yonent bi nee na dees na takk jigéen ngir tànn ci ñeenti yëf am na ñuy taamu jigéen ngir alal ja am na ñuy taamu jigéen ngir aw askanam akub juddoom am na ñuy taamu jigéen ngir ab taaram am na ñuy taamu jigéen ngir diineem nee na waaye yow boo dee taamu taamul borom diine kon ñàkkoo kon tooyoo mu ngoog kon boog jigéen jabar def koy taamu boo taamoo boroomu taar xam leen ne taarub jigéen taarub jigéen ñeent fukki at yi njëkk ya taarub jigéen du yàgg bu fekkee taarub yaram dong la leemu lee léegi deret ji dem su amee ñaar doom ñett deret ji day wàññiku nooy def nga fakki keneen di tax waaye di wër rek déedéet tànnal jigéen ngir diineem boo ca fekkee ab taar jigéen ji ñaw amul jigéen ji ñu defarul rek moo am bu fekkee da ngaa tànn jigéen ngir juddu boo sàgganee boo sàgganee ba dugg ci jigéen ngir juddu da nga fa fekk yarandi ko ko réewande goo xam ne gii mosoo koo gis mukk mukk mukk mukk dootoo xam nooy def boo ko fasee def li yàlla bañ boo ko téye téye fitna dootoo xam nooy def boo ko tànnee ngir alal bu alal ji jeexee ah ngeen def nag boo ko tànnee ngir diine nag mu sàmm la sàmmal la sa kër bu ko féministe woowee mu ne ko ab jullit laa boo génnee mu aaral la sa kër jigéen bi ngeen gis jëkkëram génn muy recevoir yeneen góor da dul ab jullit bu njur ga dëggoo genn góor du dugg ci néegam lu dul jë- jëkkëram te itam jigéen ji boo ko tàmm tàmmoo ngir diineem su ngeen amee doom mu yaral la ko yaru diina bu doom ja màggee baax amal la njëriñ amal ko njëriñ loolu moo tax yonent bi ne deel tànn ci jigéen boroom diine ja kon ñàkk koo sooyoo mu ngoon bu ko defee jabar ci ni ko islaam wone boo xasee sëy ak moom dafa daal di nekk sa sharik nga ameel ko ay xaq mu ameel la ay xaq mu am ci yow ay droit yow it nga am ci moom ay droit kenn ku nekk ci yéen jëkkër ji ak jabar ji kenn ku ne am ay devoir ay warugar ak ay droit kenn ku nekk war a sàmm warugar yooyee bu ko defee islam daf na won ni maison conjugale te mooy néegub sëy yàlla da koo dénk jigéen góor ko jiite naam waaye góor du toog ci kër gi yàlla jigéen la tànn dénk ko néegub sëy ne ko jaamu fi yàlla xam ngeen ne sunu mag ñu baax ñi ab sëy dañ ca daan jaamu yàlla dañuy wax ne diw koy denc diw koy denc léegi kenn dencitul kenn da nga koy takk waaye dencitoo faaw mu dem Espagne faaw mu dem Amérique faaw mu dem Jidda soo ko bëggee tere mu yóbbu la assemblée waaw mu yóbbu la assemblée kenn dencitul kenn léegi bu njëkk ba adduna baax na da nga daan denc jigéen mu ne sa biir kër di tatbiq wala tabarrajna li tatbiq wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyat al ula dina tawaayatul yow sa yow jëkkëram yem ci yow léegi da ngay takk jabar muy tawaayatul góori mbedd mi par force day xeesal doo ci mën dara day mees doo ci mën dara day sol yére yu gën a rafet laaj parfum génn boo ko ne foo jëmoo damay doxe sama soxla damay doxe sama soxla saytoo ko te saytoo ko san te féministe yaa ngi fii booy xef mu la cay yóbbu bismillah jam jigéen day toog ci biir kër gi te sàmm kër gi sàmm njaboot gi sàmm alal gi yar xale yi yonent bi nee na kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal imaamu raa'in wa huwa mas'ul wal rajulu raa'in ala ala ahlihi wa huwa mas'ul wal mar'atu raa'iyatun ala bayti zawjiha wa hiya mas'ula yonent bi ne kenn ku nekk ci yéen ab sàmm la yàllaa koy sàmmloo te la ko yàlla dénk di ko ko sàmmloo dina ko ko régler ëllëg jigéen sàmm la ci néegu jëkkëram yàlla dina ko régler càmm gi ëllëg kon nag ndaw si nga xam ne dafa yaakaar ne néegu sëy bi su mënee likkatoo ko féministe ba jaare la ko fii intérêt ëllëg du ci am régler ak yàlla ah kay faw yàlla dina taxawal góor ne ko loo doxal ci néegub sëy taxawal jigéen ne ko loo doxal ci néegub sëy kenn ku nekk ci góor ak jigéen yàllaa ko rëddal ne ko lii mooy say àq nañ la ko jox lii mooy say droit na nga ko def loolu faw ñu xam ko te jaar ci bu ko defee jigéen ñi góor ñi war nañoo ànd ak ñoom ànd bu rafet ànd bu rafet booy dem bay tàqale ko sa jabar sax li tàqalikoo di bon bon ne tàqalikoo ba rafet moom la aw xa dox amsikuhunna bi maarufin aw sarrixuhunna bi maaruf booy téye sa jabar na nga ko téye ci kaw njëkk téye ko ci kaw teraaga teralal waaw waddal jabar te saxal njël for fay sa bor ba mu mat mu ngoor teralal mu ngoor jabar bu dee bëre soo bëggee mu daanu jëfal te wax ci moom lu rafet kon daal nga koy daan muñal ko muuñal ko fellal yéy te jox ko mu yëy ndaxub xolam ak sa xol déggoo ci waxtaan jigéen da ngay ànd ak moom ci kaw teral ko ci kaw xam ne dafa fragile nga bañ ko pamte pamtee def ko ndànk yar ko ci yaru diine boo fekkee ci moom ay jikko yu susaate nga muñ ko ngir yàlla di ko yar ndànk-ndànk sàkku ci ajjana sàkku ci ngërëmal yàlla yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yuusi jaarahu wastawsu binnisaai xayra buxaari yonent bi nee na képp ku gëm yàlla gëm ni bis ci dina ñëw bul lor sa dëkkandoo teyit na nga fexe ba dénkoo lu rafet ci jigéen ñi kon jigéen ñi yàlla da leen di dénkaane jigéen ñi yonent bi da leen di dénkaane bëgg ñu jëf ci ñoom lu rafet jabar su dee bëre soo bëggee mu daanu jëfal te wax ci moom lu rafet kon kon góor kilifteefam ci néegub sëy du kilifteefub lu ma neex def du kilifteefub violence waaye kilifteefub sa jabar nga naxanteeg moom sa jabar nga nga nga nga nga yar ko yorum ndànk mu ngoog loolu moo tax ñuy wax bu ko defee nga jaarale mbir mi ci xikma jaarale ko ci ak njub waaye bañ a jaare kilifteef bi ci kaw maa maa yilif su ma neex ngay def su ma neex ngay jaar julli bu jigéen day xam warugar woowu ko war ci néegub sëy xam ne warugar woowu liggéey bu sell la du dem di ko fa bàyyi